juróom fukk ak juróom yonent yàlla esayi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu nu ngi doon gëstu ci nettalib yonent yàlla yunus ak ni mu doon fexee daw fu sore aji sax ji waaye fexee daw jataayu yàlla mu ngi mel ni jéem a daw sa takkandeeru bopp noonu gisoon nanu ni yàlla ànde woon ak yunus ba ci biir jën wu rëy wi sax tey jii nag danu fas yéene jàng ci mbirum yonent bi toppoon ci jamono yunus te turam siiw ci kàddug yàlla mooy yonent yàlla esayi bi jamonoom jiitoo woon juróom ñaari téeméeri at jamonoy almasi bi esayi sëriñ la woon buy liggéeyal yàlla ci kër yàlla ga suleymaan tabaxoon ca yerusalem bés bu nekk esaayi ak sëriñ sa ca des waroon nañu jébbal yàlla saraxi mala ci rendikaay ba ngir misaal deretu almasi bi naroon a tuuru ndax bàkkaaru àddina si waaye yàlla dogalul woon esaayi nekk sëriñ kese déglu leen kon li xewoon benn bés bi esaayi nekkee ci biir kër yàlla ga nu ngi jàng ci téereb esaayi saar juróom benn esaayi bind na ne ci at ma buur ba osiyas deewe dama gis borom bi mu toog ci ngàngune mu kawe lool te lafi mbubbam fees kër yàlla ga ay malaakaa ngi ko tiim ku nekk ci ñoom amoon na juróom benni laaf ñaar yu ñuy muure seen xarkanam ñaar yu ñuy muure seeni tànk ak ñaar yu ñuy jëfandikoo ngir naaw kenn ku nekk ngi doon yuuxu moroomam te naan aji sax ji boroom kaaraange yi moo sel sell sel àddina sépp ngi fees dell ak ndamam fondamaab bunt ya di yëngu bu metti ndax baat bi doon jib te kër ga fees ak saxaar noonu ma daldi ne toroxte dikkal na ma sanku naa ndaxte nit laa koo xam ne ay tuñam selluñu rax ca dolli ma dëkk ci biir xeet woo xam ne seeni tuñ dañu selladi te samay bët gis nañu buur bi aji sax ji boroom kaaraange yi waaye benn ci malaaka yi naaw wut si ma ma nga téye ci loxoom xeer wu lakk ba xonq mu jële ko ca rendikaayu sarax ba ak ay keppukaay mu daldi ca laal sama gémmiñ te ne lii laal na say tuñ say ñawteef dañ na te baal nañu la sa bàkkaar ma dégg baatu borom bi naan ana kan laa yónni te kan moonuy demal ma tontu ne maa ngi yónni ma noonu la yàlla aji sax ji feeñale woon esayi ndamam ak sellaayam woo ko yónni ko ngir mu dem yégal kàddoom bànni israel di yawut te bind ko ci téere ngir njariñu doomu aadama yépp téereb esaayi téere bu gudd la te xóot te amunu jotu gëstu ci lépp li mu ëmb wante ci émission tey bi dinanu faxe tënk xibaaru yonent yàlla esaayi ci ñaari xalaat yu am maana ci bu jëkk dinanu gis ni esaayi yëgale woon yawut yi xibaar bu bon ci lu jëm ci seen bàkkaar ak mbugal gi ñu yelloo ci ñaareel bi nu gis ni mu leen dëgtale xebaar bu baax ci lu jëm ci almasi bi waroona gane ci àddina ngir gàddu leen seen mbugaluk bàkkaar benn xebaar bu bon bi jëm ci bàkkaar ak payam ñaar xebaar bu baax bi jëm ci musalkat bi naroona a fayal bàkkaarkat yi seen boru bàkkaar ci tënk loolu mooy waareb yonenti yàlla esayi nanu jëkk jukki nag aaya yu yi wone xebaar bu bon bi yàlla sol ci esayi ngir mu yëgal ko yawut ya a képp ko am ay nopp ci sar benn yonent yàlla esayi dafa bind ne asamaan yi déglu leen suuf joxeel ab nopp ndax aji sax jaa ngiy wax dundal naa te yar ay xale waaye tooñ nañu ma nag xàmmee na boroomam te mbaam sëf xam na gàmbam waaye bànni israel xamul dara sama mbooloo amul xel cëy mbooloom moykat yi di dingeen torox yéen xeet wi xuus ci bàkkaar di giir gi dëpp ci lu bon yéen doom yu yàqu yi wàcc ngeen aji sax ji di xeeb aji sell ju israel won ngeen ko gannaaw ba dem fu sore bàyyi leen a indi saraxi neen sip naa seeni cuuraay xajootuma seeni màggal muy ci terutel weer wi mbaa bési nooflaay yi wala ndajey diine yi mënatuma muñ seeni ndajey kasara yi seeni màggali terutel weer wi ak seeni xew ci bési diine suur naa leen këll ba tàyyi naa ci yen bi tàllal leen seeni loxo ma dumuyu leen bareel leen seeni ñaan ma tanxamlu leen noonu la yonent yàlla esayi yedde woon yawut yi ndax seen naafeq te tënk seen bàkkaar ci wax ji yàlla aji sax ji ne na xeet wii ñu ngi may teral ci gémmiñ kese waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale ndénkaanay nit kese kon gannaaw ba esayi yeddee yawut yi ndax seen bàkkaar mu daldi leen tàmbali xamal xebaar bu baax bi am doole ngir sellal xolu képp ku ko gëm ci jot gi nu dese tey nag nanu fexe jukki aslëf ci wax yu neex yooyu esaayi bindoon ci mbirum almasi bi naroon a gane si àddina ngir musal bàkkaarkat yi esaayi dafa bind ci saar ñeent fukk ne seen yàlla nee na defal leen sama mbooloo dëfal leen seen xol baat baa ngi jëpp naan xàll leen yoonu aj sax ji ca màndiŋ ma maasale leen mbedd ya ca tàkk ga ngir sunu yàlla na bépp xur fees bépp tund màbb muy mag mbaa ndaw yoon wi ñagas ratax te mbartal doon joor noonu ndamul aji sax ji feeñ te nit ñépp gisandoo ko ndax gémmiñu aj sax ji wax na ko yow yerusalem yéegal ci tund wu kawe ngir yéene xewaar bu baax bi na sa kàddu jib te bul ragal di wax dëkki yuda seen yàllaa ngi borom baa ngi aji sax jaa ngi ñëw ak kàttan te ci saar juróom ñaar esayi teg ci ne borom bi moom ci boppam dina leen won firnde janq bu mësula say dina ëmb jur ju góor tudd ko Emmanuel liy tekki yàlla ganesi nanu naka noonu dégg nanu yëgleb esayi ci ni yàlla façon yéene wàcce xelam ak kàddoom ci biir benn janq bu mësula sëy ngir musalkatu bàkkaarkat yi juddu ci àddina ni ngeen ko xame almasi bi amul woon baay ci kaw suuf laata muy juddu sax mu ngi nekkoon ca asamaan ndaxte mooy kàddug yàlla gi nekkoon ak yàlla ca njalbeen ga almasi bi moo doon xelum yàlla mi yor bindu nit looloo taxoon esaayi mën a yëgle naan janq bu mësula sëy dina ëmb jur doom ju góor tude ko emmanuel li tekki yàlla ganesi nanu ci saar yi ci topp nag esaayi bind na lu bari ci mbirum dikku almasi bi am na fu mu ne xeet wi doon wey ci lëndëm gis nañu leer gu mag ñi dëkkoon ci réew mi deegi njatt leer fenkal na leen ndaxte doom juddul nanu mayees nanu doom ju góor te dina yor nguur gi des na ko tudde diglekat bu yéeme yàlla mi mën lépp bay bu sax buuru jàmm noonu gumba yi dinañu gis tëx yi di dégg lafañ yi di tëbantu ni kéwal te làmmiñ yu luu ne dell ak mbég ci aaya yooyu dégg nanu yëgleb yonent yàlla esayi ci ni almasi bi naroon a indee ci kaw suuf selaayu yàlla ak yërmandeem def ay jëf yu kenn deful ngir ñépp man ci xam bu wóor ne almasi bu sell bii ci jataayu yàlla la jóge looloo taxoon esayi bind ne des na tudde almasi bi diglekat bu yéeme yàlla mi mën lépp baay bu sax buuru jàmm ci lu wóor esaayi melul woon ni niti jamonoy tey ji ñiy fexe yamale almasi bi ak yonent yi yonent yàlla esaayi moom ràññee woon na ndamu ramukat bi naroon na jóge ci jataayu yàlla léegi nag bala nuy tàggoo am na weneen saar wu nu wara jàng saar juróom fukk ak ñett mooy saar wi gën a rafet te ëpp maanaa ci lépp li yonent yàlla Esayi bindoon ndaxte dafa ci yëgle ni almasi bi naroon a tuure deretam ni xar mu ñuy rend ci ngir yenu mbugaluk bàkkaaru àddina déglu leen ak xel xibaar bu baax bi yàlla jottali yonentam Esayi juróom ñaari téeméeri at lu jiitu jamonoy almasi bi mbind mu sell mi nee na ana kan moo gëm sunu xebaar ku xàmmee xob aji sax ji ndaxte jaam bi maanaam almasi bi màgg na ci kanamam mel ni njembat ni ngarab suy génn ci suuf su waw amul woon jëmm amul woon taar meloom amul woon lu nuy wootal ci moom nit ñi xeeb nañu ko fàkk ko nitu naqar la ku dëkke tiis xeeb nañu ko seexlu ko ba mel ni ku ñuy daw danoo yaakaar ne ci mbugal la nekk yàlla ngi koy fàdd di ko toroxal te fekk sunu tiis la yenu gàddu sunuy naqar wante sunuy bàkkaar a tax mu gaañu ne làcc ndax sunuy tooñ mbugal gi nu may jàmm moom la dal ay góomam ñoo tax nu wér nun ñépp réeroon ni ay xar ku nekk aw sa yoonu bopp te aji sax ji yen ko sunuy njubadi nun ñépp fitnaal nañu ko mu dékku ko te boolewu ca wax mel ni xar mu ñuy rend ji ni mburtu mu ci kanami watkat mu ne cell cig nafeq lañu ko àtte ba yeew ko rey ñi mu tollool jamono ku ci xalaat lii jukkee nañu ko ci ñiy dund fàdd ko ngir bàkkaari askan wi suur nañu ko ci biir ñu bon ña rob ka ak ku bare alal te moona musula def lu bon te fen génnewul ci gémmiñam waaye soob na aji sax ji mu gaañ ko yen ko tiis wu xel dajul bi mu jébbalee bakkanam ni sarax ngir fay baakaar yi dina gis ak njabootam te gudd fan te jëfu aji sax ji lawe ci loxoom bu ay coonom mate dina gis leer gi te xolam sedd sama jaam bi jub ci xam-xamam dina àtte nit ñu bare njub te gàddu seeni tooñ moo tax ma jox ko ci wàllu buur yi muy seddu ci cërub ñi am tur ndaxte jébbale na bakkanam ba dee te ñu boole ko ca limub ñu bon ña ndaxte yenu na bàkkaari ñu bari te tinul ñi tooñ amin loolu mooy li esayi bindoon ci mbirum coono bi almasi bi naroon a daj ngir fayal nu sunuy bàkkaar waaw faaw ramukat bi sonnoon tuur deretam ngir yàlla mën nu baal sunuy bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem looloo taxoon esayi bind ne sunuy bàkkaar tax mu gaañu ne laaj ndax sunuy tooñ nun ñépp réeroon ni ay xar ku nekk aw sa yoonu bopp te aji sax ji yenn ko sunuy njubadi nun ñépp amin aaya bu neex bi dafay tënk xebaaru téereb esayi ci ñaari xalaat xalaat bu jëkk bi dafa ëmb xebaar bu bon te ñaareelu xalaat bi ëmb xebaar bu baax ci bu njëkk war nu xam ne ñun ñépp ay bàkkaarkat lanu te amunu benn pexe ngir musal sunu bopp moo tax esayi bind ne ñun ñépp réeroon ni ay xar ku nekk aw sa yoonu bopp ci ñaareel bi fokk nu xam ne yàlla rabatoon na pexe ngir musal bàkkaarkat yi te pexe moomoo ngi ci deewuk almasi bi ak ndekkiteem looloo tax esayi bind ne sunuy bàkkaara tax mu gaañu ne làcc ndax sunuy tooñ te aji sax ji yen ko sunuy njubadi nun ñépp yow miy déglu tey ndax ràññee nga ni say bàkkaar réye fa kanam yàlla aji sell ji ndax xam nga lu tax almasi bi waroon a tuur deretam ni xar mu ñuy rend xalaatal bu baax ci wax yonent yàlla esaay yii yàlla bëgg na leeral sa xel ci lépp li esaay bind ci saar juróom fukk ak ñett te su fekkee ne am na dara lu leerul ci sa xel ci lu nu jàng tey bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis ngeen jëf ci déglu bi yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yàlla Esayi bind ne aji sax ji nee na ñëw leen nu layoo bu seeni bàkkaar melee ni lu xonq cur ñu dellu weex ni meew bu ñu xonqee ni deret dinañu weex tàll ni perkal